leen di leen nuyu yéen ñëpp presse bi ah, vraiment euh, di leen gërëm di leen sant seen taxawaay tey vraiment kontaan nañ trop ci yéen li ngeen taxawee nit ñi tey vraiment xam ne ñun ñëpp famille lan daal ñoo bokk ndey ak baay gis nañ seen taxawaay ñoo ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant vraiment. waaw tey yaakaar naa ne seen xaalis seen bopp tey daanaka ñu am rek ci di taxawaay. lii rek moo ñu war a ah, ah, ndax ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay am ñun benn famille lan ku ci sa bopp metti ñëpp la ñi famille lamb ñëpp la ñëpp la seen bopp war a metti comprendre nga ñun nii ñu def noonu rek la waroon def da daje sunu rakk la sunu frère la mu fee wax lu ñaaw euh, cat nag du wees am cat du wees vraiment lii am am na ba noppi ñun dañuy taxaw di sukku suñuy tànk di jéggulu ñaan su sunu su si réew di ko ñaan nekk ak teranga wala ba pelañaa yi vraiment suñuy rakk lan suñuy frère lanu waxtaan nañu ak ñoom wax dëgg yàlla amuñu benn problème waxtaan nañu ak ñoom c'est que li ñoo am na pare rek mënuñu si dara waaye ñoo ngi jégalu l'essentiel euh, dañuy ñaan ku mën a jàppale la dëgg nga jàppale ko te yàlla tax léeg nga dégg ay nit di wax naan euh, la dëggeer ana xaalis bi mu doon bëree ana non non non non non pour xoolee foofu ndax soo gisee mu demee nii rek xañ na am na lu ko waral ku xamul nag xamul ku xamul xamul moo tax ñuy waxee nii ñuy waxee waaw ay li mu doon bëree xaalis bi mu doon bëree yooyu yëpp du wax ku xamul xamul lii dafa am nu mu demee rek am na yoo xam ne nu mu see xóot waaye vraiment ku ko mën a jàppale daan na ko jàppale loolu la ñuy ñaan di gërëm ñëpp ñu si jàpp di gërëm comme ni Père Bécaye mbay vraiment gis nañ taxawaay bi rafet na ak doom Modou Mbaye ah Lamine Samba Makan laay Diop xaas ñi ci taxaw yëpp di ci taxaw ñi def suuba ñii def ci kaw ak ak ki joxe 25 millions itam ñoo ngi ko ci gërëm bu sant bëggul ko turam ñoo ngi koy gërëm di ko sant vraiment daal suñu xol seet na ci ñëpp ndax lii ñu def nii tey li ñu def ni tay dafa am luñ ci djublu kese da am luñ ci djublu luñ ci djublu rek moy lan pour ñu jappalé ko ndax affaire bi matagul kilifa yépp ñong leen do kilifa géejawa way ñong ci ñoo wax ak ñom tay muy promoteur yi tamit ñoo wax ak ñom vraiment euh, ku ci melni Abdou assim yaay ñom Baye yaay ñom massaka Bor Ndiaye vraiment Mansour Kassé comprendre nga promoteur ah euh, ki mu tuddo Makan vraiment ñong koy gërëm di sant geste bu mu Ibrahima Diop vraiment lu wax ñëpp daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ku ci mën a jàpp rek. commissaire ba waaw ba ci commissaire ba commissaire naa koy commencé ci commissaire yi nekk ñëpp ñu ngi leen di gërëm di sant ba ci ah, nu mu tudd sant ak kii nu mu tudd tribunal ba ci juge bi ñëpp ñoo leen di gërëm di leen sant loo xam ne nag seen liggéey la ñuy ah. waaye vraiment. waaye tey ma nag Alioune Seye démb ñëw na ba gis euh, euh, Bira Sène waxtaan nag moom tey ginnaaw yàlla yontu moo ñu jox saal bi waaw moo ñu jox saal bi comme que salle bi dañ koy loué wax dëgg yàlla loué wuñu koo jot daf ñu koo jox te yàlla tax waaw loolu ñëw ko ci gërëm di ko sant mais nee ne nii mooy bi nga xam xaalis lu bëri waaw loolu lépp dëgg la lu ñu wax yëpp dëgg la waaye daal l'essentiel daal man awma lu ma ciy wax daal ndax salle bi dañ ko waroon loué te loué wuñu ko bi daa seen ginnaaw yàlla ak yoon te moom la jox man loolu laa benn représentant. waaw dëgg loolu tamit dëgg la waxoon nañ ko ko moom Bira waaw pour ma am benn représentant bu bu teewoon tamit. loolu waaye acte la moo gënoon ni ñëw fi ñu leen saal bi wala ñu bañ ñu ko jox acte la acte la de nag suñu ko joxee dañ leen ciy gërëm di ko sant ndax acte la moo gënoon ñu bañ ñu ko jox ah, ah oui ndax dañuy def saal yi ku fi def conférence bi da ngay fay fay ñu dañ ñu koo jox nag vraiment fay ñu. moo tax mu egg ci penc bi waaye mënoon nañ ko régler suñu biir waaye nag lii la yàlla dogal kenn mën ci dara ndey bi léegi tamit woo na ay nitam. kat ci moom la da guerre woo ay nitam ku toog waxtaan ak ñoom waaw dama lay expliquer dama la wax la de guerre mi nek ci biir nan lay mëna woté non avant problème ya ci biir. avant ma seen tànk dégg nga wax. waaw mais problème bi am ay at. avant mu ko voyage d' mais est ce que waxtaanoon na si nii. waaw loolu lépp dëgg la loolu yëpp wax ñun dal dimbal la ñaan dimbal la ñuy ku ñu jappalé nga japp fele ñaa ñu ngi leen di gërëm di sant ñepp ku jàppale da ngeen ñu ngi leen gërëm nga sant. lolou mo nee deug mu non je non non non non non non yow saytane nga nga naan bàll téléphone woo comprendre di loxu ay djébu ak wax ku xamul nak xamoo ñun li ñu wara def ñun ñoko ci def comprendre kilifa yi nekk géej yooyu ñëpp ñoo ngi leen di sant ñoo leen di gërëm ndax suñu tax bi ñuy def ñun yëg nañ ko li ñuy def suuf ñun yëg nañ ku xamul nag xamoo ñun li ñuy wax ñun xam nañ ko ndax ñun ñooy jóg di dox di dem ci ku ne di wax moom kilifa yi gis nañ kii li ciy tànk yi ciy dox ŋaañu ñu kenn ŋaañu ñu benn kilifa ŋaañu ñu benn kilifa kilifa géej yooyu ŋaañu ñu si kenn mais nit kenn li ñu war a def ñoo ngi koy def xañ na affaire dafa ñëwagul waaye ñoom li ñoom li ñu war a def waaye ama neex li mu wax ama neex ama neex wax dëgg la waaw li mu wax Sall dafa ne affaire bi loolu d'accord naa dëgg mun nañ ko régler suñu biir dëgg la dëgg la c'est que c'est fii nag suñu coobare ah suñu coobare ñàkk fexe ba moo tax mu egg si ah Malick Gakou gisuma ko gisuma ko de wax dëgg yàlla gisuma ko. mais est-ce que seet ngeen leen. non non non non wax dëgg yàlla man woo naa ko jotuma ko wax dëgg yàlla ma jotuma ko waaye am na présentation. mais mais dafa am benn abstation am na abstation ah? boo non tam gis naa leen. Ah, waaw gis naa fi tamit euh, kii nu mu tudd vraiment gis naa ko ah Giribaudo woo naa ko am. waaw gis ah, li nga xamante waxtaan na man waxtaan naa moom woon na Aliou Seye ah, booy ñaa woon na ma woon na ma Amady waxtaan na comprendre nga ak neen ma ñoom ñooñu ci ñoo ciy jàpp. waaye mbër ci ñëw yaa xam. lii nattu la nag te cet la. te cat du wees ñaanaluñ ko kenn ñaanaluñ ko kenn ñaanaluñ ko kenn waaye tey fii ñëpp booroon teew ndax lii dal la dëgër mën naa dal keneen tamit ci mbëri ñaanaluñ ko kenn nag loolu donc wasalaam